àdduna lépp loo gis rek njàngat la njàngat la et puis moo tax ñu ko doon wax ñu xam ne rek aussi mbër yi nekkuñu c'est pas n'importe qui lu xam lu xew ci dëkk bi xam nañ ko li nekk ci dëkk bi xew nañ ko dañ leen koy fàttaliki rek pour ñu gën ñoo jox cër gën a xam suñu doy aussi loolu dong la. salaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax. Euh, di gën a santaat yàlla aussi tamit ci dajale bi nga xamante ne dajale nañ ko fi muy monde làmb tey suñu président di Gris Bordeaux ñu jiital ko daanaka buñ nuyoo Gris Bordeaux rek nuyu nañu bëri ñëpp waaye nag li ma ci jëkk a wax mooy ñu ngi sant ñi nga xamante ne ñoo waral lii tey muy ko ci mel ni Iliman Lam ak Aziz Aly Ndiaye euh, ginnaaw yàlla ak yëpp nu mu neexee nag ak nu mu mel ak nu mu taaroo ñoom ñoo ci jàpp parce que ci liggéey bi lañ bokk làmb la ñuy dund mais si tamit di sant suñu papa yi nga xamante ne ñoo tax ñu bëgg làmb ndax làmb fu mu jógee moo sori ancien boulaar yi ku ci mel suñu papa Mbaye Guèye Robert ay Falang ay Doubales ay Boy Bambara ñoo xeex lii ba tey ñu ñu war a ñoo xeex kon ñun bu ñu xeexul rek du ñu ay góor ndax mbër mbër moo gore mbër mooy jàmbaar mbër mbër kenn mënu ko faj parce que ñu dañuy signé di jaayante di dem ci diine di dem ci montagne di dem ci musculation yi di dóorante ay campagne soxlawuñu alalu jàmm suñu doole lañ bëgg moom lañuy sàmm ba saa rek lii am léegi nag yàlla dogal na coronavirus bi yàgg na lool lool lool parce que tey xamuñu kañ la fi jógee li ñuy wax monsieur le président de la république du Macky Sall moom laay wax nga wàcc si terrain bi xam lu xew ci réew mi ndax am na solo ndax buñ la jiitalee am na lu bëri mënoo koo xam mais boo wàccee ci terrain bi di nga xam lépp di nga gisal lépp réew mi fu mu toll ndaw yi sonn nañu jeunes yi sonn nañu bien vrai que nag yàlla suturaal nañu. Ah, ñafe nañ suñu laaj ba àgg fa ñu àgg te dama may xale yoo xam ne yow topp suñu ginnaaw bëgg ñu yaakaar ñu te bu ñu bëggee làmb aussi tamit ñoom ñoo tax ñoom ñoo tax kon nag rafet na ah, mesure barrière yi mën nañ koo respecté dañ ko mos a respecté boobu ba léegi ñu ngi ciy waxtaan di ci def suñu xeetu laay kattan kon nag loolu rek mbër kenn mënu ko fay ndax tey boo wëccee bu wëcce woon nguur nguur day fees dell Gris Bordeaux noonu Balla Gaye nag li ñuy ñaan monsieur le président de la République du Sénégal mu tijjal ñu suñu stade ñu bëri tàllal ñu suñu kenn pour ñu ñaan parce que su ñu am rek suñu boppul luñ ko liggéeyal parce que ñun la ñuy ñeme ñeme nañ ko mais xale yi xale yi bu jar a la jeunesse boobu jar a la parce que ëllëg njëriñu réew mi ñu ngi ci ñoom làmb nag mu nekk facteur développement boo xamante ne saa ah, nañu mu ubbi ñu nekk suñuy activité daal di liggéey parce que moom nañu am loolu lañu yaakaar képp ku fi mës jaar mu nga nekk ci état.

loolu si tamit boo ñu boo ñu boo ñu ubbilee esat bàyyi ñu noonu day metti monsieur le président kon gars yi mën toog tey ñëpp di gërëm ñëpp le président Gris ak euh, ténor yi nga xam ne ñu ngi toog tey am na ñu am nañu mbégte am nañu cant jëm ci yéen seen rakk yi toog ci ginnaaw tey pour wax leen champion làmb jëpp ak képp koo xam ne da nga diriger écurie yaa ngi toog nii ci ginnaaw buñ doon lim duñu jeexal ñëpp a ngi fi ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp mais président Gris Bordeaux gàcc ngaa làmb bëgg ngeen tàcc ko bu baax a baax a baax man du ma ne nit yàllaa ngi lay nuyu te gisuma ko nit la koo xam ni ku ëmbul la comme ni ko niñ ko waxee woon bis bis yàlla def na am na tolof tolof maag Balla Gaye mii dem fa Nous waxtaan ñu wax loolu nit ku am ouverture d'esprit la ku mën pour mais féliciter l'ancien bureau qui était là Balla Diouf mi secrétaire général ngeen ko bu baax ndax lii ngeen lijjanti ba di ko def moom place am la doon joxe ñu fay réunion donc merci beaucoup encore une fois euh, le B52 suñu aussi depuis l'association avant ñun ñuy ñëw mi ngi suñu mag la suñu frère la te sa taxawaay aussi dañu bëgg ngeen tàcc ko bu baax a baax a baax baax di wax aussi le roi des arènes Modou Lo dama bëgg ngeen xam ni démb vidéoom audio yi ma jox yi mu doon def yëpp mi ngi ci groupe bi mi ngi ànd ak gars yi ak fukki loxo bu Balla Gaye teewee mel na ni teew na démb wax na jox na vidéoom ñi nekk ci groupe bi ñëpp dégg nañ ko joxe na ay audio ñëpp dégg ko donc dama bëgg que que décision du président bi la mais je damay xolli président on n'a pas un Youssou pour aider les jeunes mais on a un balagay, on a un Bombardier on a un on a un autre aussi on ne commande pas mais si dëkk bi lañ bokk aussi nous, nous ñun la culture nous dañ gisuñu ñu dajale lu ñu dajale ñun ak suñuy déem ak seen nous. Dakar jox ko état bi bu ñu démé ba subventionné ñëpp subventionné dafa melni xébel dafa am nañ ko waxté dé man man président bi ñoo and dañ ko campagnal ñun ñu tok ñëpp dañ ko campagnal ñëpp ko campagnal li ñu fournir ci effort ak ci ak ci cadeau ak ñëw di prestation artistes yu bari yu jox ay defuñu donc président li la Balla Gaye wax la ñun dañu ak yow mais ne man dama xaw am kersa ma donc président nga jeunes ñun dem ci nous président président Almadi dëkkuñu un Foire dëkkuñu ci banlieue bi lañ dëkk ñuy seen kër di monsieur le président de la république au conseil au conseil HCCT foofu dem yaa ngi fekk nawetaan yaa ngi fekk euh, footballeur yaa ngi fekk basketteur mais chaque fois dañuy léser président xeexuñu xulowuñu mais nag adressé nañ la interpellé nañ la yow yaay suñu président te dañu bëgg nga dimbali làmb ubbi làmb subventionné xale yi jàppale leen projet yi nga taxawal yëpp nga jàppale leen ñu ànd am dara parce que booy itam bëgg nañ am dara allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dakar instant rek yaa ma gën a xaw ma ci kaw lañ jugee.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 information yi may soxla yëpp ñoo ma koy jox muy dugg ci YouTube bi di ko rek. looy wax ci Dakar instant. mais jàmm. looy wax ci Dakar instant. Dakar instant na ngi instantané. boo yeewoo. moom laay seetaan. boo tëddee. moom sinap. moom laay sinap Instagram. moom Twitter. Dakar instant. Dakar instant à instant.